mbokki jullit yi noo ngi nuyu ñëpp tey baalu àq ñëpp tey di leen baal maa ngi tudd Baye Jibril Samb dëkk Mbacke Xewar doonoon kenn ci taalibe sëñ Modou yi sëñ Modou dafa am ay taalibe sëñ Tuubaa yu doon xebat yu doon xeeñtu jëmmi sëñ Tuubaa ji fu ñu koy liggéeyalee ba yàlla dogal ñu daje ak jëmmam ak melokaanam aku doxinam aki i waxim ak jëfam nu amuk doylu lool ca jëmmam ja jébbal ko sunu bopp ànd moom di liggéeyal sëñ Touba liggéey boobee nag ku ne xam na ne yoonu murit ni muy doxee ñii dañuy yëkkati seen alal ñii di yëkkati seenu ñaq ñii di joxe seen kàttani jëmm ñii di joxe seenum xel ñun ñii di wax nag ca ña àndoon moom ca liggéey ci ci ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy dañ doon joxe sunu dooley jëmm mooy di gudd nekk ca daara ja di ko guddeel di ko bëccëgal yenn nag suñu mbokki taalibe itam côté bañ ma ne mooy yëkkati seen alal di ko ko jox ñii di xañ seenu njaboot di yëkkati seeni alal di ko ko jox ñu ànd di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ca liggéeyan woowee munu daan digalit daanu tere nuy dox di dox di dox ba jamono yii ci ginnaaw yenn nat ci ay jëwrin jot lu mel ni ay vidéo ak ay audio ban ko jotee itam lañ war a def lépp def nañ ko mooy danoo danoo danoo dañoo jugee ndakaaru ñëw ba ci moom waxtaan ak moom waxtaanu biir nekk vidéo yi ak audio yi li ci nekk mooy kenn ci taalibeem yi nga xam ne kenn ci ay taalibeem la doon diggante ak ay ak soxnaam di ci wax wax ju wax wax ju xaw a doy di daal ci ci diggante jigéen ak góor ci ci yu jëm ci caaxaan muy taalibeem bu ñuy wax sëñ moor nekk France ak soxnaam suñuy wax soxna Ayda ba loolu amee ba ko taalibe yi jotee danoo jugee Ndakaaru ñëw gis ko gisub biir waxtaan ak moom ci njëkk ak teraanga ak sutura mu daal di xamal ne a ah, lii am kat dëgg la maa ko def waaye maa ngi tuubal yàlla tey tuubal yoon tey tuubal suñ tubaa lii am seytaane yàgg na ma fëgg ci bunt bu ne waaye tey ci bunt bii la ma jaare kon suturaal leen ma li andi wax ji lépp nag ba loolu amee nee nañ ko de mën nañ laa suturaal waaye suturaal gi ci kaw leen képp lay doon muy dañuy dañuy dañuy dañuy waxtaan ak mboolem taali bi nga xam ne ñun ñoo bokkoon benn pas-pas ñii di yëkkati seeni alal ñii ñii dem sax am si dem ba tàggoog seen waajur ngir jëmmum jooju kon ñooñu faaw ñu leeral leen li xew su boobaa nag képp kuy jàpp ku nekk da ngay jàpp képp ku kuy bàyyee itam yow la concerné boo xoolee en général loolu moo indi moo indi moo indi wax ji lépp li jur wax ji loolu ci la jógee plainte daal cay génn mbir mi kenn ci ñun bëggutoon mu àgg fii ndax suturaam moom mooy sunu sutura lañ ca man lépp ci rafetal ak ci ak dox lépp defe na ndax ba mbir mu amee ñoom danoo fexe ba mboolem téléphone yi mu nekkoon ñu dindi ko ci téléphone yëpp dindi ko ci données yëpp ba mu des ci téléphone kenn ku ñuy wax xaadim meng te moom li mu waxoon mooy du ma ko partagé ku yàlla bind loole nag ca lañ nekkoon waaye bu demee ba plainte am kenn ku nekk dox ci doxin kilifa yi kenn ku nekk dox ci doxin walla war mooy nañ fexe ba retraité plainte bi ñu waxtaan ci mbir mi lépp daa di sedd loola amut kon mbir mi lii moo ko waral li maa ngi tudd Baye Serigne Gueye Minanul Baqil Xadim dëkk Touba koo gis sama toogaay bi da xam ni toogaay yi jàlle wut nag yi mooy man la yàlla dogaloon sëriñ bi dénkoon ma kàddoom ma doonoon porte problème ci ilmiyan wa fikriyan mooy ci xam-xamu diine bisimilah si Mamadou Lo Ngabou waaw bisimilah waaw Cheikh Mamadou Lo Ngabou mu ndaw mu dénk ma kàddoom lépp lu jëm ci diine ak lépp lu jëm ci mbirum sëriñ man nag ñett mbir moo tax sama teewaay fii mooy jëwriñ Abdul Ahad mi nga xamante ni bëkk démb lañ ko arrêté ci sama jëmm la jaare ba xam sëriñ bi xarim Mbengue mi nga xamante ni mi ngi jaare mi tee porte parole bi nga xamante sëriñ bëggoon na ko ci man ci moom la ko sëriñ bi jaarale xaadim jàllale ma ko ma accepté loolu ñëw ci daar ji ñetteel mooy wóolëre laa ci keneen kër ci kër yi suñ tubaab yi fa joxoon sama bopp kon ñetti mbir moo ma teewloo fii nii mbir mi ne ko gis ku nekk xam ni lu rëy am na sëriñ bi ku ko xam ku nekk 2009 laa ko xam 2010 ñu doon ay ndaw bëgg suñ tubaab di ko xeeñcu histoire jàngal ni sëriñ tubaab na meloon ci colokaanam waxinam dëkkinam ak nam naan tër bi yaa ñu gis ko suñ xel dem ci sëriñ tubaa ñu xiif sëriñ tubaab kom gaynde ni mu xiifee ndawal ñu topp ko nga xam ne sëriñ boo doxal parteem këram ñaari part rek ma fa mooy wëllëre ak taalibe te boo fa demee mënoo xàmmee kii taalibe ak kii wëllëre nga xam ne ay bàyyikat ay wutkatu ngërëmal sëriñ Tuubaa ñoo fa tasee woon 2009 bi la yàgg na indi naa fa nit ku nekk tamit nit ku ne fekk na fa waaye lii bi mu amee man sëriñ bi moo waxal boppam ni ma mbir am na ni ma nattu am na natt boo xam diis na lool te woyofut waaye bi ma waxee xawuma lam wax bi ma génne laa gëstu wax ja wax ja ba ma ko gëstoo tamit ñun suñu jëmi bopp dox nañ ci dox doxin woo xam ne ngir bëgg sutura am jàmm am ci deru Serigne tubaa deru yoonu murit ban gëstoo loolu jëwriñ yow gëmal nañu xamal nañu sécurise nañ video yi ak audio yooyu man maak Ibrahima Mbaye maa ni ko maak yow ni demee ci sëriñ bi waruñoo toog di yam ci ay dégg naa nangam kepp ndax mbir mi bu kalaatee dana bëri ay jëmm yu bari ci ñun lañuy baas yow ngir xam dëgg-dëgg information yi ci leen dem ba fa barab fa fam nekk ma gis vidéo yi ci sama bët dégg audio yi ci sama nopp ma bàyyi ndax maa jàppoon te Sëñ tax ngir dara ma demoon ba gis loo xamante ni sama bët yi am na kersa jàkkaar ak moom muy toog may toog ma tekki sama laxasaay comme ni ko sama nawli yi waxee kon mbir mi du lenn lu may daa am xew-xew bu am xew-xew bu am musuñu koo foog ci moom ak ci biir barab ba mu doon lu ñuy soge lool ndax buñ koy déggee man nelawuma lekkuma maag samay nawle képp ku bëgg Sëñ Tuubaa ku nekk baa nga bëgg ko moom baa nga bëgg lu baax tey jii am nga kersa rus nga lu waral loolu mooy sa yaakaar ci moom dafa sooxe moo waral kon man mii de waxe yow néewatuma ci barab ba maanaam jóge naa fi ci barab ba maa ci yeneen i mbir aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waaye mën a nekk te di ñu seetaan ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm man mii di wax maa ngi tudd Maxtaar Silla dëkk Saati boo gisee ma yëkkati sama kàddu nag bëgg andi ay leeral rek ci mbir moom la xam yéen ko dégg mu xew ngaabu ak ci kilifa googu ngeen ci tudd man mii ngeen di gis taalibeem laa woon bokkoon ci jëwriñ yi jiite fii li wër tuuba li tax ma yëkki sama kàddu mooy mbir su xewee ak fi jamono toll ku ne da cay wax te duñ xam ni mu demee waaye man mii ku ma gis ak na ma fi meloon yaakaar naa lu ma ci wax lu ma ci wax dees na ko mën a téye ndax lu wér lay doon kilifa googu dañ ko gisoon ciw melokaanam ciw doxinam ciw jëfam lépp méngoog lislaam taxoon ñu dénk ko suñu bopp ñu ngi koy wax sëñ Modou Lo mu ndaw ci moom lañ jébbalu woon liñ jébbalu woon ci moom nag mooy pas-pas léppam dëppoog lislaam ñu ànd ak moom ca noona bañ doxee di dox di dox ba jamono egg ci lu ne dégg nañ ko ja waaye teewul nag ñu toppoon lañ topp rek mooy ay ay ay ay responsable lañ ay nit lañ te tamit fooy dénkaane si bopp day fekk mu doy la looloon na fa bawoon waaye lu ne déggoon nañ ko ci ñun engagé woon nekk ca nekk ca nekk ca bi ñu doxee jamonoy dox di dox ba ci ay preuve yu leer naññ yu ma teg sama bat man mii ba ci ay son yu leer nañ yu ma dégg ci sama nopp mu mel ni lam ñu doon digal defu ko nekku ca lama ma daal di def mooy tekk sama laxasaay fasaase daal di nekk ca la ma war a nekk lii nag wax ji bëgguñ fi woon a agsi ndax buñ sañoon lépp sedd fasaase waaye nag dem nañ ba ci yàgg ñu cay tuumaal te ñun ay gor lañ juddoo ci dëkk bi yaroo fi màgge fi ñu xam ñu ci ngor moom lañ doon ànd ak moom bu demee ba naan dañ dañ dañ ay nit di yëkkati ay kàddu di wax naan dañ ñoo financé moo tax ñu war ko di koy yàqal yoon la ñu taxaw leeral preuve yooyu ba ko ñooñu yoree amuñoon benn intention di ko génne ndax buru dara ay murid lañ te yoon suñ ci waaye bëggoon ko tilimal ñu denc ko waaye nag buñu demee ba ay porte plainte am ci ñu téye ci suñuy nawle yoon la nag ñu génn wax taalibe kenn du ko donn ak taalibe kenn du ko jaay du lu jaay ci marché bi kenn du ko jënd nit ki moo lay xool nga doy ko mu jox la ko saa yi bu ko neexee bu dee ba amatul confiance am na droit retiré wu ndànk loolu jërul nga ciy porte plainte kenn te dama yaakaar na ñii mu porte plainte liñ ko defal ci jaayante yun jaayante liñ daj ci seen i waajur liñ ko jox ci alal dama yaakaar na ne serait-ce ngor rek waroon naa tax ak lu mën a xew te li xew lépp di responsabilité am ndax kenn puusu ko ci ak lu mën a xew rek waroon naa sàmm ngor googa ba ba du yàgg ak moom foofu